سد لساني nawir janaani safi amaani wasit baraayi mbokk yi ñuy topp ci internet bi rawatina ci seen chaîne bi Serigne Djily TV ak ci tiktok bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di feddali kóllëre ak cofeel gi bu baax a baax mbokk yi xam ngeen ne ñu ngi dëgmal weer bu màgg weer wu màgg ci lislaam weer wu màgg fa yàlla muy chahru ramadan al mubarak di weer woo xam ne weer wu barkel la weer woo xam ne weer wu rawante la ci jëf ju baax weer la woo xam ne weeru góorgóorlu ci jege borom bi subhaanahu wa taala te muy weer woo xam ne dafa làmboo léppam ak yiw ak barke ak njariñ muy weer woo xam ne ci lañuy ful jëf ji jëf yi ci lañuy ful yu baax yi muy weer woo xam ne borom bi subhaanahu wa taala da ciy gën a dot yërmandeem da ciy gën a dolli leerug jullit bi da ciy gëna dolli ngëmug jullit bi di gëna leeral xolam weer la woo xam ne aji woor aji woor ji day njëkkante day njëkkante ci ngërëmal borom subhaanahu ci fàggu yiw ak tuyaaba ci tudd yàlla ci xeeti jaamu yàlla yu wuute yuñ jagleel weer wi kon weer la woo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu masaana jot lépp lim daan def ci lu baax ak xeeti jaamu yàlla yi da ko daa yokk ba ci am njàngam alxuraan da ko yokk ay julleem da daan yokk léppam da daan yokk ndax weer la woo xam ne weer wu ñu war a profitoo la ni bari indee ak alquran alkarim jële nañ ci anas radiallahu anhu mu wax mu nettali jële ci yonent bi sallallahu mu wax ne hada chahru ramadan jaakum tuftaxu fihi abwaabul janna wa tuxlaqu fihi abwaabu nnaari wa tusalsilu fihi achayatin ñu jële ci nettali abi hurayrata radiallahu anhu mu ne anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam qaal ataakum chahru ramadan chahrun mubaarak farada allahu alaykum siyaamahu tuftahu fihi abwaabu aljanna wa tuglabu fihi abwaabu aljahim wa tugallu fihi maradat alshayatin wa fihi leylatun xayrun min alfi shahr man xurima xayruha faqad xurim maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nettali na wax ne weeru koor weer barkel la yàlla indi na ko ci yéen farataal na ko ci yéen ak kooram ndax weer la woowu bu duggee mboolem bunt àjjana ya mboolem wunti àjjana yi day ubbiku mboolem wunti sawara yi ak jaxiim yépp da koy tëj ne weer woowu dañuy jëng seytaane yi am na guddi gokk ku dajeeg moom ci jaamu yàlla day wecc junniy weer mu ne ju euh, guddi googu nag kum raw yi mu rëy rëy raw na la kon mbokk yi weeru koor di ñëw ñu ngi leen ciy ndokkeel bu di ñaan borom bi subhaanahu wa taala ñu fekke ko te ko te taxawuko ko te taxaw ci niñ ci war a taxawe mu bett ñu xéewal guñ mën a jaamoo borom bi subhaanahu wa taala ak guñu mën a dimbalee ñi ko soxla ndax xam ngeen ne joxe ci lislaam weer yëpp la gën a rawatina nag weeru koor xanaa liñ ciy dolli rek ginnaaw lépp lu baax ci bis yëpp la gëne waaye am na bis yooyu da ciy raw am na weer yooyu def lu baax da ciy raw dañ koy multiplier ay payam mu bokk ci weeru koor weeru koor nag bokk na ci ay tuyaaba yuñ gën a mën a fàggu mu bokk ci tudd yàlla xam ngeen ne suñu waxtaan yi weesu ci bari indi nañ njëriñal tudd yàlla ndax moom ngay dugge ci lislaam te mooy baatum la ilaha illallah te daanaka it bàyyi ko moo lay génn ci lislaam kon tudd yàlla dafa am martaba bu rëy ci borom bi subhaanahu wa taala tem bari njariñ yu muy def ci yow ci wàll gu nekk zikrullahi muy tudd yàlla nag buñ koy wax bari na ñi ci jëfandikoo ay yoon waaye tudd yàlla buñ ko waxee rek général mooy lépp loo xam ne yaa ngi koy génn ci saw làmmiñ tam jëm ci borom bi subhaanahu wa muy ak jaamu yàlla loolee nag ni ci gën ci li nit di def mooy alquranul karim bu ñu waxee alquranul karim mooy waxi borom bi subhaanahu wa taala ndax alquran li borom bi subhaanahu wa taala gëne bindee fi noonu la alquran gëne mboolem wax yi ak ku ko mën a wax. ba tax na sax buñ tuddee alxuraanul karim bokk na ci tur yàlla yi ndax asmaullahi alxusna yëpp mi ngi ci alxuraanul karim asmaullahi alxusna yëpp mi ngi ci alxuraanul karim ak mbooleem tur yàlla yoo xam ne ñu ngi ci alxuraanul karim tur yàlla nag comme ni nga ko xamee istixfaar mi ngi ci asmaullahi alxusna mi ngi ci alxuraan a ngi ci salaatu ala nabi mi ngi ci yooyu yëpp ay tur yàlla la yoo xam ne boo ci taxoo di ko jëfandikoo dana la jariñ awraadul euh, turux yi mi ngi ci ndax yooyu yëpp génnul tudd yàlla kon di baril di ko def ci koor gi bokk na ci li lay gën a tax nga gën a jege borom bi subhaanahu wa taala ak gën a fàggu tuyaaba bokkul nag ak tur yàlla yi nga xam ne nit ki na koy topp ngir ñaan aajo bépp tur yàlla booy faral di jëfandikoo boo xamee yoon wi mën nga ci ñaan sa aajo waaye lool ñi nga xam ne ñooy dem ci wàllu lasaraar xaj na danañ ko ñëwaat ñëwaat ci am luñ ci gën a yaatalaat ñi xam ne dañuy am soxla tëgg ko rawaan wala tëgg ko xudaam dugg ko xalwa wala riyaada ngir aajo joo xam ne aajo jooji moo leen tax a jóg weneen yoon la waaye daal yow mi nga xam ne da nga bëgg a fàggu tuyaaba tur yàlla woo jël yéene ci ak jaamu yàlla dana la jariñ incha allah ndax tur yàlla alxuraan ci boppam ma wax ne yaa ayuha alladina amanu zkuru llah zikran kasiran dee leen tudd yàlla tudd gu baree bare utala ko lim am ay xadis yonent bu wax ne dee sikkar dee leen tudd yàlla bañ jàpp ne ñi ay dof lañ ndax tudu yàlla gu bari te làmmiñ luñ ci gën a mën a génn ci aw yiw li ci gën mooy tudd yàlla ndax tudd yàlla day tax nga am ngërëmal borom bi subhaanahu wa taala da cee gaaw ndax bu yàggee na ngay taqoog borom bi subhaanahu wa taala te jëlliyaat yi day feeñ sa xol leer yi day feeñ sa day feeñ sax ba ci boo tëddee guddi ñu la koy misaal tudd yàlla day tax yàlla yëkkati la yowmal xiyaama day yëkkati nit ki ci ay martaba yu kawe bu bis pencee mbooloo ma buñ dajee ñu ngi ci misaal benn xissa boo xam ne yonent yàlla idris alayhi salaam yonent yàlla idris alayhi salaam abdullah ibnu abbas radiallahu anhuma nettali ko xam ngeen ne yonent yàlla Idris wax nañ ne ab tayar la woon maanaa dana ñaw ay sër ay yére mu bis mu nas poso puso bi duggut te seetluwu ko xam naa ñi den nag moom ne ko puso bi kat weñ gi duggul ci poso bi mu tudd yàlla ne subhanallah tudd yàlla googu mu tudd tamit dëggu ci moom am bés ci bés yi yàlla na ko Idris dinaa la yëkkati ci mbarab bu kawe Idris yonent yàlla Idris daal di jooy daal di sujootal borom bi subhaanahu wa mu ne ko lu tax mu ne ko daam bis nga yëkkati ma tudd ma ci kon tudd googu mu tudd te muy dëggu ci yow te mooy moo waral dina la yëkkati beneen martaba boo xam ne amul beneen martaba bu ko gën a kawe te kon di bari tudd yàlla di bari def istighfar mën na laa yóbbu ci borom bi subhaanahu wa taala foo xam ne sax sentuwoo fa sa bopp ñu jële ci abu darda radiallahu taala anhu mu wax ne li kulli cheyin jila wa inna jila alxulubi zikrullahi azza wa jal mu ne lépp loo gis am na xacc xacc mooy lu xomaat luy dindi xomaat mooy xacc comme weñ day xomaat yu mel noonu ni ñuy def ba mu mel na melaat moo tudd ak xacc moo tax mu ne lépp loo gis rek day xumaat waaye lépp loo gis am na xàccam te xol bu xamaat lu ko mën a beesalaat mooy tudd yàlla borom bi subhaanahu wa taala tudd day tax borom bi subhaanahu wa jéggal na say bàkkaar yoo xam ak yoo xamut yoo yëg ak yoo yëgut tudd yàlla dalay day def ci yow saadatu nafs saadatu nafs mooy xel mu dal tex ak xol tudd yàlla day tax nga mos bànneexu tudd yàlla loolu daraja ju kawe la ndax fekk ci booy tudd yàlla nga xam neexitu tudd yàlla neexit wi di ko mos di ko yëg ci sa yëg-yëg ci sa ci ci sa sirru eggugoo ci dëgg-dëgg tudd yàlla nga xam ne boo toogee ab diir tuddoo yàlla sax day mel ni danga xiif wala danga mar loolu daraja ju kawe la li yonante bi waxoon bilaal bu julli masaana jot danaan ko rayixnaa bi salaax yaa bilaal waaw maanaam ni ma la ko mën a waxee ñi ngi woon cib coono waaye buñ jullee rek suñ coono bépp day wàññiku kon muy mos ak jaamu yàlla masalaawatu salaax wala mos ba neexu jaamu yàlla day am ni dafay yegg waaw loolu nag looy taxoo la lu yàgg ak looy sellal ba suñ borom eggalale foofu tudd yàlla tudd yàlla day dundal sab xol da koy dalal ak lu mën a xew bu dee koo xam ne daal taxoog tudd yàlla jafe-jafe yum am suñ borom dana ko ko teggil ndax dalay bett xéewal foo ko dul foog taxoog tudd yàlla day tax doo mën a def lu ñaaw dalay sàmm ba doo mën a def lu ñaaw tudd yàlla day leeral sa jëmm ba ku la gis sopp la ba ku la gis am lum yëg ci boppam tudd yàlla day tax sax boo waxee nit seen wax dugg la ñu am lu yëg ci seen bopp kuy taxaw tudd yàlla làmmiñam bu waxee du bokk ak làmmiñu ko taxawoon ak tudd yàlla fi mu mën a egg ci xol leneen du fa mën a yegg lu dul làmmiñu ku taxaw tudd yàlla ak di salal borom subhaanahu wa taala tudd yàlla day tax nga génn ci ak naafeq tudd yàlla dalay solal mbubbam wegeel ba ku la gis dalay jox cër tudd yàlla day tax nga mucc ci mbugalam bàmmeel tudd yàlla daal dalay fulal say tuyaaba ba kenn du xam na muy toll tudd yàlla day dindi jaaxle day dindi njàqare tudd yàlla daal day ñod di sax wërsëg tuddu yàlla day wàcc ci sa ci sa jëmm ak yërmande akum dal mooy waral léeg-léeg ngay gent yenn gént yi ci am yu leen fitnaal ci gént wala lu lay dàq ci gent bu dee ñaare ko xam ne daa saxoog tur yàlla ci biir gént ki da ngay yëg ne yaa ngi tudd yàlla boo tudd yàlla rek loola sori yooyu yëpp ci xeeti wàcce yërmande borom bi subhaanahu wa taala la bokk ci ki tudd yàlla kuy tudd yàlla sax ñaara lu baree bari luy dikk ci moom borom bi subhaanahu wa da ko koy wax wala mu wax ko ay sarax yum ko yum war a génn wala mu wax ko ay tegtal yum war a def wala mu wax ko ay bunt yum war a jaar kon mbokk yi koor gaa ngi noonu ak tudd yàlla yi ma fi wax yëpp mu dee weeru koor gi bu fekkoon ne benn lañ lay may boo ko defee ci koor gi boo ko taxaw ci koor gi fukk lañ lay may wala lu ko ëpp yàlla rek a xam num toll kon koor ak tudd yàlla lu am solo la nit ki di ko wéttali ko ndax mel na ni koor gi ñu baree bari dañuy am jot ñu baree bari seenum liggéey dañ cay teel a wàcc waaye nag nga bañ a jeexal koor gi rek ci ay nelaw nga bañ a jeexal koor gi ci seetaan télé wala ci déglu wala ci loo xam ne amulu la njariñ waaye nga koy jeexal ci tudd yàlla ndax boo ko defee ab diir danga da am loo yëg loo yëgutoon danga nga fàggu da loo yëgutoon ginnaaw weer wi weer wu gàtt la fanweeri fan la ku ci nekk jot ga nga xam ci koor gi war nga caa profité ci def lu baax rawatina ci tudd borom bi subhaanahu wa ak wéet moom ndax wéet ak borom bi subhaanahu wa lu am njariñ la amul lu ko ëpp njariñ ci digganteem ak jaam bi subhaanahu wa loola li la koy gën a may mooy tudd yàlla kon mbokk yi ñu ngi leen di ndokkeel ci weer wi ñu dugg eh, di ñaan borom bi subhaanahu wa taala ñu dugg ci ak bismillahi arrahmaani arrahim waaye ñu génn ci ak alhamdulilahi alamin maa ngi balu ñëpp ak nag ndax wax dafa jafe ak it mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy woo wala ñu ngi jëflanteeg ñun te xañ na am na fu ñu sooxe suñ digganteeg ñoom ci wàllu àq lépp ñu ngi leen koy jéggal waaye du suñu coobare di baal ñëpp aq di wax di leen wax wa kullu aamin wa antum bi alfa xayr wassalaamu aleykum wa rahmatullahi